أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala dars tey di ñetti aaya aaya 44 45 46 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom buur yàlla subhaanahu wa taala di ñu ci jàngal ñeenti mbir bu ci njëkk bayaanu makril yahud bil muminina bil amali ala idlalihim fi ahdi nubuwa wa ilal yawmi dinañ jàng tey mbokk yi ñooñu di yahud yi sunu borom subhanahu wa taala du deñ di ñu jàngal ñun jullit ñi di ñu feeñalal pexe yahuud yi ak seenu mbon ak seenu bañ jullit ak bañ lislaam ak bañ yonent yàlla lislaam yonent lislaam bi mu ne yàllaa ngi leeral tey ci seeni pexe ñoom yahuud yi pexe yu ñuy pexeel way gëm yàlla yi ci jëf yu ñuy jëf pour réeral leen ci jamono yonent ba fii ñu toll yahud yi mosuñu tegg seen tànk pour jullit yi alku pour jullit yi torox pour jullit yi bu ñu def santaane yàlla moo tax tey mboolem méthode bu yàq diine di sànk ndawal jullit di sànk jigéenu lislaam yahud yi ñoo ko pexe mboolem système yi ngeen di gis yu ñëw ci àdduna bi yahud yi ñoo ko def pour bu jullit yi gis seen diine pour bu jullit yi dund diine moo tax aaya yi nekk sunu kanam def ci bokk aaya yi nga xam ne yàlla mu ngi génne pexe yahud yi pour jullit ñi xam waaye maal asaf li metti te nekk naqaru xol mooy jullit ñi xamuñu seen noon xamuñu kan lañ war a faral xamuñu kan lañ war a àndal xamuñu kan mooy seen soppe xamuñu kan mooy seen noonu mu ne aaya bi nekk sunu kanam borom baa ngi leeral makrul yahud pexe yahud yi ñan lañuy fexeel bil muminin ci way gëm yàlla yi lan lañ leen di fexeel mu ne bil amali ala idlalihim ci jëf ay yoon ay pexe ay projet yoo xam ne da leen di réeral wala làmb ji ñu bëri jàpp nañ ne fi mu nekk nii Sénégal lamb ji waa Sénégal ñoo ko créé quoi boo waxee ñu ne la non suqaliku ay la de nit ñi dañ ciy suqaliku non day tax jeunes yi am métier day tax jeunes yëpp fi mu nekk nii am na lu ñu def yooyu la gis nga liñ koy layee mais xam ngeen ne américains yi ñooñu ëpp doole téeméer yoon wala ah ñooñu ëpp ay moyens téeméer yoon. ñoo ñëpp ay appareils yu ñuy entraîné téeméer yoon di nga gis américain sooy sooy liir seenu télé boobu ñuy def aqwa rajulin fil aalam kii ëpp doole ci àddina bi di nga gis benn waaye boo xamante ne dañuy seeni avion mu ne këcc mu xëcc ko avion bi di ñëw di ko topp kooku ak ñi ko ëpp doole di nga gis ku ñu teg ñaari 16 21 takk leeni buum waa ji nekk ci kanam di ko xëcc oto yi di ñëw kooku ak ñi ko ëpp doole da ngeen mooy waaye gisu leen foofu ñu fay teg ay million ne ku ko gañee jël bëre amul mais xoolal ñun mbëri ñoo ëpp ministre yi salaire ban ministre moo fi am ci deux minutes ci deux secondes nga am cent millions ban ministre la wax leen moom ministre de salaire ministre ñaata la Sénégal deux millions ah deux millions ah député mooy deux ministre mooy cinq millions mbër salaire am ñaata la amul salaire li muy taxañ moo ëpp li ministre bi di taxañ te moom du ko taxañ ci ci ci ci weer bu dee moom ay seconde deux secondes rek mu am cent millions buñ ko daanee buñ ko bu daanelee dañ koy daaneel gars yi nekk fi di jooy moom mu ngi naan supp supp bu fartata rek gars yi poobar ko ba mu neex gars yi nekk fi di yuuxu di xëm ñii di dee moom mu ngi fële gars yi ay gars yi naan non garaawul ah di naan suppam bu dëgër boo xam ne kurpeñ yiñ ko sol yëpp supp bi dina ko dindi ñeen ñi nekk fii di dof dof lu ñii di yuuxu fii ñii di xëm ñii di dee ñii di dof dof lu xam nga loolu ci réew euh, réew moo xam ne xamuñu dara dañoo ndóol nit ñi war a jàng ñu encouragé nit ñi ñu war a am xam-xam keroog benn waaye nee na seen koñ dafa am benn suqu mbër bu fa doon ngénte benn suqu mbër moo fa doon ngénte suqu mbër nee na mbër bu mag bi daal di ñëw rek nee na waa école bi ñoo njëkk a génn di ko seetaan waa école bi bàyyi classe yi musa yeeg élèves yeeg élèves yi ñuy jaar ci fenêtre yi école boobu noonu la ñu arrêté seen jàng jànguñu ci suba gi ngoon gi lañ mujj jàngaat ndax lan benn mbër moo ñëw ci koñ ba rek ñëpp faq di seeti waa ji ku nekk naan gis naa ko gis naa ko xam nga loolu mooy musiba naarullaay bu ñuy yotti xamuñu ko wallahi ñoo ngi jëm jamono président mbër la ñuy am ak ay député mbër ak ay ministre mbër est-ce xam ngeen lool est-ce xam ngeen ne mbër yi bu ñu retraité seen combat yi ñuy def bu xëccoo mairie yi est-ce xam ngeen dañ koy gagné du Youssou Ndour a ngi ni nekk ministre ba nekkoon la génne lu mu jàng lu mu mën ah ingénieur u lan la waaw dem leen bu yàggee président mbër la ñuy am ministre musicien député animateur euh, ay sénateur u théâtre kat ak ay fecckat su ko defee nag loolu ñu doon wax nag yonent bi doon wax nag mandir ko axir zaman nag mooy ay ay dof jiite leen nag allahu akbar foofu lañ jëm walaay li yonent bi waxoon yëpp mu ngi ci yoon bi di ñëw sallallahu alayhi wa sallam zamanun taqdimul jahil wa taaxirul aalim loolu sax commencé na jàkka joo dugg imaam bu xamul dara moo fa nekk jàkka boo dem ci Sénégal genn wàllu jàkk yëpp imaam yi xamuñu dara maa ngi ñoom a yem waaw loolu neex la ñuy def waaw bu ñu nee imaam dañ ko fee war a jële mu ne ma nangu bunt yi wala ma jël samay seng waaw wala ma coupé courant bi maa ko fa indi yooyu yëpp pexe yahud yi la projet yi ñuy gis fii télé xoolal télévision yi gis ngeen film yi yëpp projet yahud yi yahud yi ñoo indi seen dara jox jullit yi ne acca bismillah ñun ñooy fay ñaareel mooy fi kifayati llahi almuminina wa nusratihi ma yugnihim an yatlubu zalika min ahad gayra rabbihim aza wa jal mbokk yi ñaareel lu ñuy jële ci aaya yi mooy sunu borom subhanahu wa taala moom moo indi ndimbalam chaque jour di fekk di protéger way gëm yàlla yi ak di leen dimbali ak di leen jox loo xam ne danañ ko doylu ba duñ dem di ñaani keneen ndeysaan fi kifayatillahi lil muminin yàlla dina fekk julli di protéger leen doy leen wa nusratihi ak dimbaliku maa yughnihim loo xam ne ñoom jullit ñi war nañ cee doy doylu ba ñu dem di ñaani yeneen ak di dem di xaaraani ak dem di di di ba jar ñuy bàyyi seen diini loolu tey ay nit daw nañ tasaaroo ci àdduna bi ñii dem ci dëkku yéeféer yi ñii dem ñii dem ñii dem ñi ci ëpp ci ñoom dañoo bàyyi seen diine am na fa ñu des ba léegi seen diine waaye am na ñoo xam ne seen diine ñàkk nañ ko ndeysaan ndax lan ndax poñeetu àdduna ñetteel mooy alkasf an suui niyaat wa amalil yahud wa isair rasul yàlla daf ñu wuññil wuññi wuññi mooy génne feeñal yéena yahud yi yàlla daf koo feeñal seen yéene bu bon bu ñu yéene ci yonent bi ak seen yéene bu ñaaw bu ñu yéene ci lislaam yàlla daan ñuy génneel yooyu yëpp daan ñu koy tegal ci taabal ji pour ñu teg ci sunu bët pour ñu mën a moytu langaamu ci sunu diine ñeenteel mooy al imaanul qalil laa yajdi saahibuhu wala yanfa'uhu bi haal ngëm gu néew du jëriñ boroomam ngëm ngëm su néewee rek amul lu muy jëriñ boroomam wala ngëm dafa war a ne keng dëgër waaye ngëm gu yaafus ngëm gu nooy waaw ngëmantu du la jëriñ dërëm saa yoo gisee ñu ne nit jëriñoo na ngëm yàllaam dafa fekk ngëm gi nee na keng yahud yi am nañ ngëm di waaye ngëm ngee bëriwut dañuy gëmantu moo tax yàlla alag leen yàlla nattu leen mbokki jullit yi ñeenti tomb yi moom la ñuy jëlee ci aaya yi nekk sunu kanam ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نسيبا من الكتاب يشترون الدلالة ويريدون أن تدلوا السبيل والله أعلم بآدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن موادعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يقول المولى ألم ترى يا محمد ألم تبصر بقلبك أي تعلم alam tara xanaa gisoo ah kay yow jullit gis nga de alam tara alam tubsir xanaa gisoo bi qalbik yëgoo ci sa xol ila lazina ci gaa yi nga xam ne uutu joxoon na leen nasiban cër minal kitaabi ci téere bi muy ban téere tawraat yàlla joxoon na leen cër ñu jàng téere bi comprendre ko ñu faram-fànce ko gis ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay mandarga yi wane ne yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii nag hazihi aya nazalat fi rifaata ibnu zayd ibnu taabut ahad uzama il yahud bil madina aaya bi wàcc na kenn ci sangu yahud yi ku tudd rifaa neena kaana waaw ida kallama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lawa lisanahu fa qala raayina sam'aka ya muhammad hatta nafhamuka summa taana fi lislam su daan dem di wax ak yonent bi da koy bërëxal xam ngeen bërëxal wala kàll bërëxal mooy nit ñëw wax la lu bon loo xam ne da ngay jàpp ne lu baax la la wax misaal kenn ñu fengale ko mu ne la asalaamaaleyk comme gars yi ni ñu def asalaamaaleyk mooy lan mooy yàlla na nga dee al asam al maut xoolal xanaa baat yooyu quoi ñëwul fekk la nga toog ñu wax la ko ak yeneen ñu mel ni moom wala bu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dénk ma sa nopp waaye damay wax ak yow wax ma sa nopp mooy li gars yi xewal léegi xanaa yow nopp bon bi nga ma jox mu ne non pourtant bu baax bi la non non non déggoo ma de déggoo ma de xanaa nopp bon bi nga ma jox gis nga terme yahudi yooyu lañ gars yi yor léegi nga wax ngeen mu ne ah bul dëbb ndox waa yow xam nga yow da ngay dëbb ndox gis nga wax yu bon yooyu waaye boo dee yàlla tawal doj ay yooyu terme yooyu ab jullit waru ko wax wa qulu linnaasi husnan wax leen lu baax wax leen nit ñi lu baax jullit na wax wax ju leer waaw mbokk yi borom bi subhanahu wa taala di tourné loo xelu jullit yi di leen won am na ci ñoo xam ne ci yahud yi dañoo jàng ba ne ar ndax lan utu nasiban min al kitaab yàlla jox na leen cër ci téere boobu di tawraat ñu jàng ko bu baax xam dëgg gi waaye dañ koo teg fee lu tax yashtaruuna dalalata dañoo jënde njub lan lañ jënde njub réer dañoo gis dëgg ngi ni ñu teg dëgg daal di tànn caaxaan tànn mbon loolu nag daanaka tey ci àddina bi genn wàllu jullit yëpp dañoo mel noonu ndax jikko yahut lan yor ñaata jullit ñoo gis dëgg sànni dëgg jël caaxaan ñaata fekk dëgg baa ngi nii tele nga dajeeg nit nga julli ba pare génn ci jàkka ji wala jour vendredi nga xutba ba pare génn gaa yi ñëw ne ni nga rek kenn ah sëñ bi waaye li nga wax mooy dëgg de wallaay dëgg la waaye nag xam nga rek la way la dëgg la waaye xam nga dëgg kay jël rek waaye dëgg la waaye ah yàlla man de wax dëgg yàlla bëgg nañ ko waaye xam nga fi mu nekk nii ñun mënatuñoo deltu ginnaaw ah kon da nga bëgg a dee dem safara xam nga ne lii du dëgg nga bëgg cee dee dana ma jaaxal torop nit ne lii de dëgg la waaye nag waaye nag waaw ñun xam nañ ne diine bi daal mooy li yàlla ak yonent bi wax waaye nag ndeysaan li ma paay doon wax màkk sas lii yëpp dëgg la waaye nag xam nga ñun nu nuy def ma ne ah ah kon bàyyi leen dëgg yàlla bi bu ngeen dee ngeen dem safara déedéet déedéet bul wax loolu kon da ngaa bëgg ne Sénégal gi yëpp safara la ñu jëm ma ne waxuma ko de dama ne ku nekkul ci dëgg bi laa wax lan ma wax lu ma waxul dëgg daal mi ngi nii alxaqu min rabbik dëgg ci sa borom la bàyyeekoo li yàlla waxoon yonent bi falaa takunanna minal mumtarin bul nekk di sikki sàkk dëgg ngi nii jëlal waaye yàlla wax na yonent bi man yàlla maa la jox dëgg walakinnahum aksarahum lil xaqi kaarihuun maa la jox dëgg waaye dëgg li ëpp ci nit ñi bëgguñu ko waaw ñu ëpp ci nit ñi bëgguñu dëgg ndax booy wax dëgg rek gars yi dañ lay mer dañ lay mere waaw daf la seeni noon waaw la seen noon jàpp nañ la yow da nga leen di tëree dund yahudi noonu lañ mel dañoo xam dëgg parce que yàlla moo leen jox xam-xam waaye ñu sànni ko fële yastaruna dalaala ñu dem jël réer al kufru bil iman ngëm a ngi nii kéeféer a ngi nii ñu jël kéeféer bàyyi ngëm yàlla borom bi nee na yemuñ ci sax jël réer waaye wa yuriduna ñuy namm anta dillu ngeen sànku yéen assabila yoon wi bu ñu yemale woon sax ñoom seen mbir ci seen bopp waaye ñoom dañoo bàyyi dëgg bi pare ñu bëgg yéen ah ngeen mel ni ñoom loolu olof yi di wax picc mu lakkum taat day bëgg morom waddu law tudhinu fu yudhinun yàlla waxoon na wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum in istataaw yàlla waxoon na ah yahudi ah waddu law takfuru fatakunu sawa bëgg nañ ngeen weddi comme ñoom ni ñuy weddee ngeen yem waaw ñaari waay dañoo sàcc woon kenn ki dugal loxo bi ci suuf ñu kepp ko ne ko tippit dagg mu gaaw génne ko nëbb ko ne keneen ki dugalal kooku dugal ñu jàpp loxo bi mu ne jàpp nañ sama loxo de mu daal di génne loxo bu dagg bi ne ko bala ñu koy bàyyi mu mel nii pourtant bi ñu daggee loxo bu ku njëkk ki fekkoon ne ku baax la lu muy def na ndaw gis nga niñ ma def waaye xoolal mu noppi mu noppi ba ñu jàpp loxo kële kooku ne ko jàpp nañ sama loxo de mu daal di doog a génne loxoom bi fi mu ko denc ne ko bala ñu koy bàyyi de mu mel nii waaw mooy dafa bëgg morom waaw ñaari gumba dañoo ànd dañ doon tooñ benn waay waa ji day defar defar defar këram ba mu rafet def ci piscine ñoom bu ñu ñëwee rek duñ fa fekk waa ji rek ñu daal di plongé ñoom ñaar ci piscine bi sangu ba nooy rek dem benn bis waa ji daal di comprendre loolu mu xam ne ñi ay gumba lañ mu ŋàcc ndox mi bi mu ŋàccee ndox mi ba mu set kenn ki ñëw rek plongé rek daal ni vip daal di dal ci dër bi lan la waroon wax keneen ki bul plongé mu ne keneen ki ñëwul kooku ne ko dégguma kirim ring fujje maanaam boo ci daanoo ci ndox ni muy def procédure mu ne keneen ki ñëwul kooku ne ko dégguma kiriñ kiñ kuc de dégguma soow ndox de ñëwuma ah kooku muus na waaye gis nga nit ñi bon ñi chaque jour dañuy bëgg loolu ba fii da ngay gis ku tuxkat gis nga tuxkatu saga cigarette nu muy tawee day ñëw jënd kees ay sagaay allez bismillah tey maay gàtte quoi jël leen jël leen jël leen ku nekk mu jox naan katu sàngara aussi day dugg ci baar ne na ma sut xam nga luy na ma sut tegale leen kees yi ba mu sut ma maay fay gis nga parce que dafa bëgg ñëpp naan gis nga tuxkatu cigarette boo ko ne sam waay rek paquet bi lay génne sa waay ma tux waay mun a cas paquet bi du ci yem de moo lay taalal gis nga parce que dafa bëgg nga bon comme moom su ko defee duñ ne moom kese la loolu la yahud yi def yow dañoo bon ba yàlla ne leen safara ngeen jëm ñu ne ñun kese duñ dem foog ñëw baale jullit yi kon foog ñu xam tey àddina bi programme bi yahud yi teg balaa ñuy sànku bu ñu leen toppee dañuy sànku sànk bu gaaw parce que ñëpp programme yi réeral nit ñoom ñoom ñoo ko moom gis nga tey loo fi wax ñoo ko moom loo wax rek da nga naan yahud yee ko moom loo wax moo tax yàlla mu ne wa yuriduna namm nañ ñoom yahud yi anta dillu ñan ñoo moom baat bi jullit yi yéen ñii ngeen sànk lan mooy sànk mooy ngeen wàcc assabila yoon wi ban yoon siraatal mustaqim ngeen jaar ci seen yoon ngeen mel ni noom na ngeen yëg ne wallaahu yàlla aalamu moo xam bi aadaikum seeni noon yéen jullit ñi yàlla nee na seeni noon maa ko xam moo tax ma leen di wax ñii seeni noon lañ waaye bu nu yàlla ne yahudi yi noonu lañ ñu ñu ne yàlla déedéet gaa yi ñu baax lañ de parce que danañ nu financé fii la ilimaan yi jóg dem weeru koor dem ndogu ji ci yahudi yi ambassade Israël wala gaa yi di ko jooy noppeeguñu ñu ne ñu da ngeen di font ñun ñuy dem ñuy financé suñuy projet imaam yi ne fir dem Israël déggaatu leen ko ah déggaatu leen lool da ngeen defe ne imaam bi ñu jógee ndogu weeru koor ambassade Israël fu ñu jëm après Israël lañ dem waaw ñu wane leen télé ñu financé leen defal leen lépp waaw fu ñu jëm ñu ne dañoo négocier yi woon ak waa Palestine fena bon def li nga def ba pare ñuy wax encore ngay fenaat tegale encore ay bakkaar yéen ilimaanu Sénégal yi mën nañoo négocier ak Israël am affaire Palestine dama leen di laaj waaye tamit nañ leen wax dëgg dañu wax dëgg nañ ne rek dañoo uti woon projet ay projet yi ñuy financé ay financement la ñu uti woon ay ndimbal waaye jullit bu Israël di dimbali jullit bu ab yahud di dimbali allahu akbar yàlla ni waxoon ne bu ngeen fareek ñoom yéen ak ñoom a yem wa man yatawallahum ah jeex na fa innahu minhum képp ku dem ci ñoom ne yàlla ne yaa ak ñoom a yem allahu akbar aka neexul ñu dégg sunu dina waaye nag ah jaadu na de jaadu na sénégalais yi wala jaadu na jullit yi ñu mel nii nu mel lu tax parce que xamuñu alxuraan duñ jàng alxuraan te alxuraan moo ñuy wax ñen ñooy yahuud yi alxuraan moo ñuy jàngal lan mooy jikkoy yahuud alxuraan lan mooy jàngal moo ñuy jàngal lan mooy mébétu yahuud yi seeni projet ci ñun waaye comme duñ jàng alxuraan wala buñ koy jàng kenn du ko firi da ngay dégg ñu ne "Hey, bu leen firi alxuraan ñii dañoo alko nan dañuy firi alxuraan alxuraan bul fekke sax fuñ koy firee na la jaral nga sol dàlli weñ nga daw ba mu xoosu ba jeex ba nga dee bul fekke fuñ ko firee waxu yàlla ñii ñoo sot waxu yàlla ngeen naan da ngeen koy firi xale yi ndaw si ñi ñoo dëgër fit waxu yàlla kenn da koo mën a firi kenn daa xam lu yàlla bëgg a wax xool yooyu la ñuy jéem a gëmloo nit ñi kat nit ñi ne dëgg la ñii dañoo alku waaw mbokk yi bu ñu firiwul waxu yàlla te yàlla ne damaa wax ak yéen lu toll ni alquran yàlla jox nu ko yonent bi jàngale ko ba mu leer gaa yi tafsir ko ñëpp firi ko ñu firi ko ci làkk yëpp ñu ne buñ buñ bu leen bu leen ñu ko wax ñun waa Sénégal buñ ñu waxul alquran fan la ñuy xamee yàlla loolu tax nit ñi xamuñu yàlla gis ngeen nit ñi seen jaamu ak seeni mbir yëpp a yëpp a ruslu yëpp a ruslu waaw koo fi gis mu def dara rek ngay saan nga jéppi ko laay bu la yàlla natt woon nga ànd ak sénégalais yi dem màkk da ngay xeeb sa bopp bu yàlla wàcce woon benn liste ne la changer sa nationalité nga changé ko dara lañ mënul ci wàllu jaamu yàlla dara la baykat sax da ngay gis ñu ko mënul waxuma laa nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nanu bàyyi xel sunu borom subhanahu wa taala mbir yi mu ñuy wax du pour rek alquran bi du pour rek ñu daal di koy jàng di tajwid jooy neexal baat wàcc naa alquran benn waaye nee na wallahi li ñu jàng alquran sax ci Sénégal doy na ñu ne ko lu des mu ne jëfe jëfe jëfe moo des mais alquran mu ngi fi mais bal dañ ko dul jëfe loolu rek mooy sunu mbir duñ ko jëfe dañu jàng ba ni cocc benn waaye dafa fekk raaw PMI raaw PMI mu ña langar langar rek nekk ci kanam gaa yi ne ko eh mu ne maa fi war a taxaw de gaa yi ne ko lu tax mu ne aaya bi man la njëkk a wax ñu ne ko lu wax mu ne innamal xamru wal maysir al xaafis quran bu mandi aaya bi man la njëkk a wax ñu ne ko lu ma mu ne innamal xamru wal maysiru kon nag maa fi war a taxaw gaa yi ne ko jaajëf taxawal am nañu yàlla suturaal léeg-léeg nga nekk ci kaar wala nga nekk ci super yi wala tata yi nga jékki-jékki rek kii digg apprenti bi wax aaya yoo xam ne sa yaram day daw mos na dugg fii rek fii ci arab yi ñu jëm bàyyi laay dugg super man ak ay mbokk bi waa ji ne paas am ñu njëkk ku njëkkante daal di paas am benn mbokk bu ko làkk arab ne ko ah sa waay yaa ngi xëccoo tiyaaba bi de mu ne waaw looloo jaadu yàlla mu ne fastabiqul xayraat rek apprenti bi ne laqad takallamtum fusha laqad takallamtum fusha ñëpp siggi di ko xool mu ne wax ngeen arab bu sedde ca xool noonu la ko waxee wax ngeen arab bu sedde kenn ko waaw sa waay mu ne waay yow maam bag benn mbokk bu tudd Babacar Diop mu ngi Italie dafa dugg oto gis xale bu jigéen bu sol lu bon mu ne ko mu taxaw di wax ak moom di ko toog nii fi ñu toog mu koy waar di ko waar di mbokk jigéen du sol lii mbokk jigéen dafa war a ragal yàlla mbokk jigéen dafa war a sol lu jot yàlla wax na ko ci alquran yàlla nee na ya ya ayuhan ya ya ayuha rek ndaw si ne ko ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatik wa nisaai lmuminin yudinina alay kon da ngaa jàng mu ne ko ma mokkal alxuraan nga naa ma da ngaa jàng mu ne mais après waaw xoolal loolu la ñëpp loolu la Sénégal ndeysaan ndeysaan allahu akbar bi ñu génnee film Assane bi ay jigéen dañ ñu woo mbuur jigéen yuy jaay seen bopp ne ñu ñun dañoo bëgg a tuub man ak sama xarit bi defoon asan bi olof man ma def ko pulaar ñu jël benn oto benn mbokk ñun ñett ñu ànd parce que raison sécurité ñu rek ñett parce que ci ay jigéen yuy jaay seen bopp lañ dem ñu dem ndeysaan ba yegg ci garage bi woo leen téléphone ñu ñëw jël sinu kenn ñëw jël sinu ñu dem fekk dañoo loué benn terrasse jigéen ñëpp ay sénégalaises lañ ay xale yu ndaw non ñun ñëpp ñu ñëw toog ñu ne ñu da ngeen a fekk mbooloo mi wàññeeku parce que am ñoo xam ne bi ñu seetaanee kaset bi fanaanuñu fi ci guddi googu te ñoo taw ñibbi ñeneen ñi ne ah ñun dañoo fi des parce que ñun amuñu fuñ jëm ma ni kenn ki ma jege woon yow noo tudd mu ne ma Zeynab ma ne ko foo dëkk mu ne ma Baay Laay astaghfirullah astaghfirullah mu ne ma maa ngi dëkk euh, Seexwaat inna lillahi ma ni ko mais man koor yooyu laa dëkk mu ne ma Seex Wàdd laa dëkk ma koy explique mu may wax maa ngi moom ndek am na befem arab befem arab am na ko dem di jaay boppam ñu ne ko waa yéen léegi la ngeen def fi ñu ne ah yéen nekk fii liggéey après yónnee suñu kër yi ñu dund gis ngeen loolu mooy sunu problème fii ñëpp a jàng ñëpp a jàng waaye dañoo maasale masale yi moom li ngay dégg rek ana sëriñ bi ñu ne dafa fatu fatuwul de dafa fatu moo tax dootul gis da ngeen fatu ak fatu ana sëriñ bi ñu ne dafa fatu fatuwul de dafa fatu ku fatu du gis dafa am lu ko fat lu ko gaa yi jox mu fatu ndax dootul gisati dëgg bi loolu mooy suñu wax xoola caaxaan yi guddi gu nekk ay sabar di tëgg di yuux du bët set kenn du julli julli day jot sax ñu ne ci wetu jàkka ji gaa yi di tëgg ba fajar jot benn waay keroog muy discuter mu ne yaayam nee na ko bul kaas quoi ndax laa ilaha illallah la ñuy wax laa ilaha illallah dina ànd ak sabar kon yëpp ay programme u yahud la mooy na ngeen leen indil ay projet ay mbir yoo xam ne dafay nuroog diine na ngeen yàq na ngeen dugal lu nekk xoolal fi mu nekk nii chaque jour nga dégg woote bu bees woote bu bees bis bu nekk nga dégg ko woote bu bees chaque jour nga dégg yonent bu bees xalifa bu bees tur bu bees bis bu nekk nga dégg ko borom bi nee na wallaahu yàlla aalamu moo xam bi aadaikum seeni noon ñun xamuñu sunuy noon yàlla moo xam sunuy noon bu ñu yàlla nee ñoom diw seeni noon lañ kon ñun lan moon war ah mbokk yi ñu moytu noonu waaye bu nu yàlla ne ñii seeni noonu la ñun ñu def noonu ay xarit lan moo nuy dal def leen ay soppee def leen ay déeyoo def leen ay péete te yàlla ne ñi ñii seeni noonu lañ yàlla mu ne bu leen xaritoog ñoom wa kafa doy na billaay ci yàlla waliyan ngeen def ko péete ku bëgg koo faral yàlla nee na man doy na wa man yatawakkal ala allah foo wa hasbu wa ala allahi falyatawakkalu allahu waliyu lazina amanu gis nga yàlla mooy sunu péete moo war a nekk sunu péete ci moom lan war a far lu nu am na fekk lu nuy jegeel yàlla la lu ñu ñàkk na fekk du yàlla wallahi loo mun a am fekk amoo yàlla perte nga ak lu mu mun a doon loo mun a am te du yàlla wallahi buñ la dugalee bàmmeel nga réccu mu ne wa kafa doy na billaahi ci yàlla nasiran muy ku leen di dimbali yàlla kay mbokk yi ku muy dimbali fooyuti waa ndimbal yàlla ne doy naa la ndimbal soo soxlaa ndimbal ñëwal ci man wa man nasru illa min indillah te in tansurukum allahu in yansurukum allahu fala gaaliba lakum bu leen yàlla dimbalee amul kenn ku leen mën a indil victoire ku dul yàlla borom bi nee na min allazina bokk na ci gaa yooyu nga xam ne haadu ay yahud lañ luy seen mbir yu xarrifu na dañuy soppi alkalima baat an mawaadiihi ci seeni barab waaw waaw ay yahud qiila zalika qiila lahum zalika lahum li qawlihim inna hudna ilayk moo tax baat boobu lañ leen di tuddee al yahud ay tub naa war a jax na waaye taxuleen muy dëgg parce que dañuy fen yuharrifuuna at tahrif al maylu bil kalaam dañuy jengal wax dañuy fekk wax fu mu war a nekk ne lii la ñu daal di koy changé ne du loolu dem def leneen ay maanaa bi la ñuy changé pour réeralaate ci tadlil rawatina nag bu dee waxu yàlla la subhanahu wa taala ci tawraat dañ fay fekk yàlla ne lii la ñu ne di loola waaw bu yàlla ne faqtaw ñu ne fagsilu dagg leen ñu ne déedéet nañu raxas xam nga dagg ak raxas du benn chaque instant loolu mooy seen mbir saa yu yàlla waxee nii la ñu ne déedéet du nii nii la gis nga bañ leen di wax ne dugg leen baytul maqdis lan la leen yàlla wax wa duxulul baaba sujjadan ñu dugg naan xabatun fi shaar di darngu yàlla mu ne fa baddala allazina zalamu qawla allazi ah fa baddala allazina zalamu qawlan gayra allazi qiila lahum lan moo leen dal fa anzalna alayhim rijzan min alsama ma kaanu yafsukun waaw ñu ne leen laa taatadu fi sabti bu leen nappi samedi ñu tëral seeni projet ñu tëral seeni projet daan ne dañuy jàpp jën yi samedi jëli ko dimanche saa yi leen yàlla waxee ñu changé saa yi leen yàlla waxee ñu changé nuñ def jëli mbaal yi daal di kar jën yi samedi ba ñu xam ne jën yi mënuñoo rëcc ñu ñëw toog waaw dimanche jot ñu daal dem jëli ko ñu ne leen lii nag ñu ne yaa gis nga yàlla danga ñu waxoon bu leen nappi ñun nappuñu dimanche yi lañ indi jën yi bi ñuy dem ñu xaaju ñetti groupe ñii ne leen bu leen dem ragal leen yàlla bàyyi leen li ngeen def ñu ne ñoom daal ne suñu yoon nekk ñun duñ leen wax ak yéen duñu wax ak sax yéen dem toogi fële ñu ne ñu ne ñun dañuy dem ban demee bay jëli jën yi di ñibbisi yàlla ne waqul na lahum kunu qiradatan xaashiin ñoom ñu yàlla def leen ay golo am na aaya bu ne dañ leen def ay golo ak ay mbaam xuux waaye xam nga aaya bi lu ci garaaw bi yàlla ne wa qulna lahum kunu qiradatan xaashiin mu ne fa jaalnaaha nakaalan lima bayna yadayha wa ma xalfaha wa mawiza lil muttaqin gis nga ndeke yemul ci ñoom loolu yàlla defoon démb yahudi def leen ay golo ki mbaam xuux ndeke ñun ñii mun nañu koo def ndax yàlla nee na dama ko def muy fay gu ma leen fay waaye muy mbugal goo xam ne def naa ko muy waar pour ñi ragal yàlla gis nga chaque jour waaraate saa yi ko yàlla defee ci alxuraan su paree rek inna fi zalika la ibra liman yaxsha inna fi zalika la ayatin li ulil albab chaque jour yàlla day wax ak borom xel lii def naa ko de waaw pour gars yi xalaat lii def naa ko pour ñeel borom xel yi ah waaye ndeysaan kenn du xalaat nit ñi nit ñi moom li yàlla def seen yoon nekk ci lépp lu yàlla defoon xeet yu njëkk yi ci alkande xeet yu njëkk yi lépp lu ñu defoon ci mbon ci alkande jullit yi tey def nañ ko bul sax sonn yàlla mu ne min allazina ci ñi nga xam ne yu xarri haadu ay yahud lañ yu xarrifuna ñuy soppi alkalima baat an mawaadihi ci barabam wa yaquluna ñu naan sami'na dégg nañ wa asayna mooy nañ dégg nga de dégg naa mbokk yi lu ci tegu lu ci war a tegu sahaaba yi bañ déggee dañu ne sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ñi ñoom biñ déggee lu ñu wax sami'na wa asayna ñun de dégg nañ waaye ñoo tey defuñu ko waaw li mooy jikkoy yahud dégg naa waaye sama yoon nekku ci sama fu du ma ko def li gën a dee ñu ne wasma dégg goo xam ne xayra musma budul aji dégg dégg ku tëx ku tëx dina dégg boo yoree leket naan xar bar est-ce que xar bi xam ne li nga koy wax ah ah mooy dégg aji tëx loolu la ñu wax yàlla ñu ne ko yàlla dégg nañ de waaye ñun de dañoo tëx dégg ku la dul wuyu duñ la mus a wuyu waaw mooy li ngay wax rek nga ñëw benn waay wax ak moom pare nga ne ko dégg nga li mu wax nga dégguma ko de fixé wu léegi yaa ngi wax mooy ça veut dire que li ngay wax da koo narut a def moo tax mu ne la dégguma ko yemuñ ci loolu waaye waraayina bi al layyan bi alsinatihim allahu akbar lu tax ñu def ko yàlla mu ne wa taanan fi diin xam nga lu ñu tuddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu sàmmkat waaw mooy aay yi ñu doon wax sànq su ñëwee di bërëxal yonent bi waraay naa yow sunu sàmmkat bi yenn saa yi nga dajeeg benn waay mu la mu la dalay wàññi comme ni yahudi yi doon waxee dañuy wàññi yonent bi wala mag ña waaw petit et petit ku sax sikkim nga naan ko petit waaw eh booy wala ñuy wax sa tur sax sa tur ñu jaar ci sa tur pour lan pour di la jéem a wàññi fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom dara ji ji mu am ku ko mun a wàññi mun ta munoo ko wàññi sa bopp ngay wàññeeku ngay wàññi rek suñu fekkee yonent bi ñu ne ko yow sàmmkat nga ban yonent moo sàmmul yonent yëpp sàmm Musaa sàmm na Ibrahima sàmm na yonent yëpp sàmm nañ loolu dafa bokk ci yar gi yàlla doon yar yonent yi waaye wax nañ li lay yam bi alsinatihim pour lan pour dëngal seeni làmmiñ ak nekk jam ci diine wa taanan fi diin dëngal làmmiñ yi ci lan pour wax wax joo xam ne jaaduwul wax ju ñaaw waaw yenn saa yi nga tourné gars yi e ips e bo ips waaw ay ñi de ñoom ay léegi nee nañ ñoom ay kii lañ quoi ay kii ay kii lañ mooy sunu conférence gunaas bi keroog ñu def def conférence ba dugg ci jàkka ji timis rek xam naa gars yi dañoo tiit gars yi gis jumaa ji fees del jàkka ji ñu pare rek imam bi daal di jël micro bi salaamaaleykum yéen xale yi laay waxal na ngeen nekk seen baay yi lu ñu nekkoon seen baay yi ngeen fi na ngeen nekk nangam wala ngeen nekk nangam wala te nag gis nga li ci xam nga li gën a grave Sénégal ñoom bëggante wuñ de waaye buñ lay sot dañuy jéem a nekk benn waaw ndeysaan na ngeen nekk lii na ngeen nekk lii di di di dénkaane kat li nit ñi war a nekk ma ne ko li ci gënoon yomb rek mooy nekk leen jullit loolu kay nga war a wax dénkaane booy dénkaane ay jullit ne leen walaa tamuutunna illaa wa antum loolu la yàlla dégg waaye nekk leen lii nekk loolu wóorul de ndax yàlla waxul nañ ko nekk lan la yàlla wax na nekk huwa sammaakum muslimuun jullit kafa amul leneen amul beneen tur jullit du am beneen tur jullit rek lan nga jullit waaye tey alkande jàpp nañu booba yoreen micro dugg ci kër yi naan yéen lan ngeen nga dégg ku la ne ñun ñun ñooy waa LDMPT ñee ne la ñun ñooy waa parti démocratique sénégalais ñee ne la ñun dama ko changé de jubluwuma loolu de ñee ne la ñun ay socialiste lañ yal noonu yàlla dimbali yàlla mu ne wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam changé seeni làmmiñ changé seeni kàddu ñi di ko bërëxal ñi di ko wax yu ñaaw lu tax wa taanan fi diin ngir jam diine allahu akbar yàlla mu ne walaw annahum cey ñoom bu fekkoon ne qaalu wax nañ samina dégg nañ wa ataana topp nañ loolu de moo doon yiw li dégg naa daal sëñ bi lu ci topp ah dégg naa li nga wax dégg naa lu ci war a tegu mooy dem jëfe ji waaye dégg naa ba pare daal di wulbati paas dem defi leneen kon déggoo yàlla mu ne buñ ne woon samina dégg nañ waataana topp nañ wasma dégg wanzur naa xool ñu dégg ñu xool nu ay wa amhil naa ndànk nu hatta nasma wa nafham daf ñu ndànk rek ba nu dégg ñu comprendre yàlla mu ne la kaana xayran lahum kon de dina nekk yiw pour ñoom ndeysaan bu ñëwoon ci yonent bi ne ko ñun de dégg nañ incha allah danañ jëfee yàlla mu ne la kaana xayran lahum dana nekk yiw ci ñoom wa aqwama dana nekk lu jub aadala lu maandu wa aswaba waaye samina wa asayna yenn saa yi sax dañ ci doon way julli dañ wax muhammadun ataana wa diinuhu qabilna ñoom ñu ne muzammaman abayna wa diinuhu gis nga muhammad ñun moom la ñuy topp muhammadun ataana jullit loolu lañ doon wa diinuhu qabil naa diineem nangu nañ ñoom ñu ne muzammaman wala ñu ne muhammad ñu ne muzammam ku ñu ŋàññi ki ba tey da ngay gis ci français yi même fii ci ñi bind extrait yi soo ñëwee ne la bindal muhammad ñu bind lan non tubaab yi maawumee la ñuy wax maa tubaab moo gën a yi bëgguñu wax sax turu yonent bi et ñu ne maawumee wala ñu ne muhammad ñu ne maawumee pourtant muhammad mën lañ ko bind en français wala mënuñu ko bind ay ñu ne maawumee maawumee la tudd waaw waaw waaw même bu ngeen di ab bu ngeen di déclarer seen doom yi bu yeboo ngeen bindal turi seen bopp koo fi ne bindal muhammad Mamadou lay bind wala mu bind ay amet rek wala mu bind Mamadou bon rek Mamadou wala bindal la Mamadou ñeneen ñi bindal la Muudu te ñoo gën a tey Muhammad lañ wax waaye seen xol yi ñoo ko munta nangu ndeysaan am na benn waay bu am benn doom xale bu ndaw bu rafet xale bi feebar mu koy yóbbu kër sœur premier jour bi sœur bi gisee xale bi daf ko këf ne ko bu rang ñëwal defal ko lépp xale bi dem deuxième jour xale bi ñëw mu defaat ko noonu troisième jour mu may ko ay ay serelek may ko meew quatrième jour mu ne ko yow sa doom bi nu mu tudd mu ne ko Mouhamad rek mu bàyyi ko ci taabal ji mu daanu dafa tiit ba bàyyi xale bi ci taabal ci xale bi daanu mu ne ko jël ko keroog la ndaw si géej foofu mu ne ko yaa ko def yaa ko yow mi ko fa yóbbu gis nga leen di déranger Mouhamad da leen di déranger ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na bu ñu waxoon lool day topp nañu dégg nañ ndànkunu la kaana xayran lahum wa aqwama dana lekk lu maandu walakin waaye laanahumullah yàlla moo leen rëbb soril leen yërmande taradahum min rahmati yàlla leen daq ci yërmandeem min hudaahu bi sababi kufrihim bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax yàlla génne yahudi ci yërmande yàlla mooy weddi gi ñu weddi yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam walakin waaye laanahumullah yàlla leen rëbb soli leen yërmande lu ko waral yow yàlla sabab baa ngoog baa bi mooy baawu sabab ya bi kufrihim sabu dañoo weddi yàlla yemu ci lool de mu ne falaa yuminuuna illa qalila du ñu gëm lu dul lu tuuti yàlla moo wax yahudi du ñu gëm yàlla lu dul tuuti la ñuy gëm kon ngëm gu tuuti lu muy jëriñ ngëm gu tuuti amul njëriñ ngëm day dëgër këng fees xol bi su ko defee ngëm googu kenn du mën a weddiloo boroomam xatta jullit yi nga xam dañoo am ngëm ay dañuy gëmantu am ngëm yu ndaw sax duñu dem ndax ku gëm-gëm gu ndaw seytaane yëngal la waaw seytaane ku mënul dara rek mooy ki gëm comme ngëm ga saaratu firawna gëmoon waaw saaratu firawna ba imaan duggee seen xol dafa fees daal firawna leen tey ma rey leen ñu ne ko defal li nga bëgg a def dara nga nu mënalul àdduna rek nga mën àllaaxira ñu nag yow ñoo fa yem cundum te ñoo ngi lay yëgal yow firawna wallahi boo ñëwee du ñu rey suñu yaram yi ngay daggate waaye imaan yi mënoo ci dara ndax xol yi nee nañ kës ak xoolal li mu leen menacé la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf wala usallibannakum fi jizii naxla wala taalamunna ah ayuna asaddu waa gars yi ne ko eh firawna yamal faqdi ma anta qaad innama taqdi adduna rek nga mën a àllaaxira ñu nag yow fa yam dara nga fa mënul waaye yow ñun ñu gëm yàlla doo toog ñoo tax war a gis nga ku gën a ñàkk fayda ci àdduna mooy ku xeex ak ku gëm yàlla parce que da ngay jàpp ne boo ko reyee perte na fekk moom loolu la bëgg boo ko reyee dee du waaja na jàng leen suratu yaasin waaja bañ ko reyee lu mu wax kii la duxulul janna yaa ne ko dugg àjjana ndeysaan muy zibilé mu dugg àjjana gars yi di ko yóbbu ci appartement malaaka yi escorté ko mu naan yaa layta qawmi yaalamuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin loolu la bëggoon texe na fii nag gars yi yaakaar mun la dóoree bal nga daanu ñu ne gis nga deena deena fekk ndeysaan li nga bëgg loolu nga am moo taxoon sahaaba yi kenn mënu loon xeex ak ñoom dañ doon wax ne ah bu ngeen ñu reyee ñu dugg àjjana bu ngeen ñu bàyyee ñu samp kàddu yàlla mun a xeex ak kooku ku dem xeexoo sax ku dem sax ndeysaan deewoo da ngay ñëw ne man de am na lu ma def lu tax ñëpp dee man deewuma man war naa xoolaat sama bopp allahu akbar benn saxaaba day lekk tàndarma mu dégg yonent bi naan kan ma bëgg dugg àjjana mu ne bax bax yonent bi ne ko lu tax nga wax loolu mu ne su ma fi toogee di lekk tàndarma bi ba mu jeex daf may tardel dama bëgg dugg aljanna mu dugg ñu rey ko mu dem aljanna gars yi noonu lañ meloon yal na yàlla def suñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sama question yi boy yem leen paa yi laay waxal